mbokk yi teewlu Senego TV ñu ngi leen di jaajëfal dikkaat ak génn ci xibaar goo xam ne tey moom la ñu xëyee lan moo xew li xew nag mooy yëngu-yëngu yi nga xamante ni moom moo am fan yi nu génn biir D-Média mi ngi gën di wéy Pa Assane Seck nekk chargé de production ca télé ba moom itamit jeté na éponge bi mooy xibaar nga xamante ni euh, dikk na waaye nag du moom dong ndax gis ngeen ni fan yi nu génn ki ñuy wax Ahmed dara yàlla dogal mu nekk maire ville de waay ñu ràññeekoon lool ci revue de presse matinale yi mu doon def moom itamit dafa jeté woon éponge bi ndax kaawam sax moom moo gënoon jur débat ndax nee nañ lan moo waral mu bàyyi est-ce que nekkul xëy na li nga xamante ni tudd nañ euh, Bougane Gueye Dany ci mbiru dossier Adji Sarr bi ci audio yooyu fuité woon ci diggante Adji Sarr ak Mamour Diallo tax ñu coupé woon signalam ndax Sénéra ko ndax D-Media moom moo ko coupé waaye lu ci mënti am Ahmed Aïdara dem na ba sax moom fi mu ne ni jël na yoonu boppam di doxal ay mbiru boppam waaye yemul ci ñoom rek ki ñuy wax Abdoulaye Mbow moom i tamit nga xamante ne moom mooy directeur de publication La Tribune moom i tamit dafa euh, démissionné waaye Pa Assane moom ci démission bi nga xamante ni fàttali nañ ñu jaar-jaar yi nga xamante ne am na ko ci groupe bi ci ginnaaw bi mu romp après contrat am ak Bougane Gueye Dany waaye mel na ni daal euh, jaajëfal na collaborateur yi nga xamante ni euh, sëkk na woon ak moom jàmm ak salaam ndax ci ni mu ko waxee ci nasaraan j'ai collaboré avec des gens merveilleux des professionnels assidus et fermement travailleurs quelle que fût la situation à des médias quelle que fût la situation a des médias kon cela veut dire que xëy na kër gu ci nekk du ñàkk yëngu-yëngu gi am des mat na taxaw seetlu fan la jëm nag ndax fi lekk ay fan tamit dañuy nar a amaat yeneen démission xamaguñu waaye pour le moment daal ñu jàpp ñii nga xamante ni amoon nañ taxawaay ca tale ba euh, dem nañ mu di ay dara mu di Abdoulaye Mbow waaye ki ci mujj ki doo waraloon xibaar gii nga xamante ni moom lañ leen doon jox di Pa Assane Seck nekkoon chargé de production moom i tamit tàggatoo na